Mansour di sëriñ Babacar di sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane fa tabarakallahu ñëpp hmm. fa tabarakallahu ñëpp hmm. di nuyu waa gi ñëpp nag bàyyiwuma kenn di nuyu càlleen yi fa tabarakallahu gis naa leen léegi soxna Salimata ak ñëpp fa tabarakallahu ñu leen nuyu di leen ziyaara waaye bokk yi dégg nañu ñun ñëpp chérif fi mu ci wàllu nit nan la war mel waaye ki ko ubbil te ubbee ko waxi ki bind ñëpp xam ñëpp muy sunu doom bi baax ji toog lu mu ubbee alquran bi ah lan nga ubbee jàng na fatiha de ah inna alladina xaalu rabbuna allah summa staxaamu inna alladina xaalu rabbuna allah waaye summas taqaamu taqaamu qaalu rabbuna allah summas taqaamu al istiqaama bu istiqaama amatul nag kon fu ñu inna alladina qaalu rabbuna allah ñëpp ne leen yàllaay sunu borom waaye summas tatanazzalu alayhim almalaika bu ñëpp tegoo ci yoon rek lépp baax waaye fii teguwuñ ci yoon dara du waaw al istiqaama al istiqaama bu amul dara du sotti moo tax wax wax Sénégal bari mhm. a wax wax nettali naa ko fu nekk koom-koom góor gi ni ma kookan la. ma ko mën a Sëriñ Babacar mu ne ma déedéet Sëriñ Babacar kañ la ko santoon ci la nekk boo buy di boromam nee ma Sëriñ Mbay waaye dootuma la tuddee Sëriñ Babacar comme que yaa ngi ci njubal gi eh. ndax dama fëgg. min ko ko kenn la ndax dama nuyoo nuyoo kenn déggul ma fëgg min ma ko kenn ba ni ko man a sëñ Babacar mu ne ma déedéet sëriñ Babacar la ko yàlla santoon ci la nekk ba bi muy wuy ji borom nee ma sëriñ Mbay laa naarifu daq bi ma ñëwee mu ne ma indi kayit ma indi kayit mu ne ma bindal laa naarifu daq ma ne ko papa mokkal naa ko mu ne ma déet lu mokk ci cër lay fay nee ma yenu nga waaw ataqala lahu ba bari sa bi fatxahu maa dumta ahqaaba mu ne bidaa tanaalu rida rahmani xaaliqina a taadduba yakfi lmara bawaaba waaye léegi loolu lépp amatul su ko defee nag ñu nuyu ñëpp sant ñëpp surtout nag xale yi xale yi man mënu ma leen fay dama toog ak sama waa kër fële di ko xale yi li ñuy def ci man guddi ak bëccëg surtout bu amee xew Tiwaawan loolu mu nu ma ko fay moo tax ñu ma woo rek bu fekkee ni dara jotuma aw ma benn ngant lu tax may ñëw loo xam ne ni dafa jóge ci samay kilifa waaye bu dee sama pexe bopp rek la dama leen di wuy ci tabaarakallahu dañuy waxtaan ba maag mboor ñu toog di waxtaan sànq ci waawan waxtu gàmm xale yi talatuñu fu ñu tëdd talatuñu fu ñu lekke talatuñu fu ñu naane mu ngi taxaw di ñu jàppale guddi ak bëccëg kon ñooñu bu ñu wootee bu fekkee ni ndegam ndegam ngor a nga fa il faut que ñu wis leen di leen ñaanal nag yàlla jàppale leen ndax ñii ma fi fekk ñu sëriñ Cheikh Tidiane ñu sëriñ Ousmane ñii ñëpp fa tabarakallahu doomi daara lañu bu doon daayira bi leneen nga ko yëkkati lu dul xam-xam kon ñii duñ leen fi fekk. Mhm. ndax daayira yu bari nañu lool. waaye doo dem ci seen picc ba ñu dajaloo fa lii xanaa par benn benn waaye dajaloo bii ñu am ñëw topp ak yéen sant leen ci yàlla bu baax a baax. Mhm. yàlla ci yàlla def tawfiq bu baax nag. di mbokk yi di ñuy ñëpp daal waxtaan wi tey du yàgg ndax. wax naa Cheikh Tidiane ni ko man damay am ay gan te yéen a ngi fi damay ñëw rek sant xale yi daal di dawaat dellu waaye dafa am rek loo xam ne il faut que ñu laal ci tuuti muy li ñu dal ñëpp sa suñu mbokk jàng na ko ba mu ne qaalu rabbuna allahu summa staqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu an laa taxaafu wala taxzanu aywa وابشروا بالجنه التي كنتم نحن اولياؤكم في الحياه وفي ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها نزلا من عفور رحيم وتم باخرك امصر بباخ امول كان تبو جيو وقي نيب نك جيما جيبو اك يال لا سين مام منصور ديفون ak serigne mustapha ci jami dama koy netali wa kërëm bër ci dem سيد منصور رضي الله تعالى عنه دفع تي سيد مصطفى فخ بو سيد مصطفى رغالتو دارا دو دو يام دا كو يار يار بو خامي سيد مصطفى يغا رغالتو دارا كودو يام يار كو تي بي مو نيكي اك موم تي نون دك بتو دتي كير باتي خيري بن ديخ كو فا نيكون فيس اك دال جيسي مو ديكو تي بو وقت زور رك ba Moustapha ragal euh, ba Moustapha ragalatul jësi gi mujj gi bu tegee tànkam ci buntu ndex bi jësi gi yëpp génn abal ko ba mu pare ñu hmm. ko gis mu ñeme yàlla waaye ku ragal yàlla ñeme ba dugal ko moo xam ni ay jaani kese fa nekk fanaan loo ko ba bu ñu xëyee dañu rombante kenn laal sa morom moo tax yar bi mu am moom sëriñ Moustapha ci kër gi bariwul ñu ko mhm. moo tax jox yàlla cër ak nu mu mën a mel moo ëpp solo foofu di ragal keneen ku dul yàlla mhm. ndax koo fi ragal ku dul yàlla rek mu wàcc loola yoon wi mhm. moo tax nag jikko bu ñàkkee rek dara dootul baax moo tax ñuy sant waa daayira bu baax ci li ñu defati pour liggéeyal lislaam yàlla leen yàlla fayal boppam wax na ni moom ci biir jàng alquraanam mu ne wa man axsanu qawlan mimman daa ilallahi wa qaala innani min almuslimina kon l'islam du woote l'islam du wax ju bari l'islam du baat yu ñuy baamu l'islam jëfe la dañ koy jëfe ci boppam moom l'islam du baat yu ñuy baamu du wax rek waaye wax ju xam ne yi dafay ànd ak jëf ju koy dëggal la lislaam dafa koy dëggal ci biiram jëf ja it lay baas ba mooy mu sell te yàlla dong tax te nga jublu ca yàlla nag bañ caa wut leneen lu dul yàlla moo tax wa man axsanu qawlan mimman daa ila allahi wa qaala innani min al muslimina te laa tastawi xasanat nag lu baax ak lu bon du ñu yem mukk léegi nag ku ëpp lu bon rek ci ngeen la ëppee. ci ñun ñii ñun. ci ah? bu ko defee nag man dama ciy waxtaan tuuti rek jox seeni borom. l'islam du ay mérite l'islam du wax ju bari l'islam dafa am lu ko yàlla bëggee tëral ko ba tax na pas-pas la pas-pas bu wér lay doon boo xam ne bi dafay méngoo ak fitra bi yàlla bindee nit ki danaa bàyyi ñoom maam Ousmane wala Cheikh Tidiane bu ma génnee léegi ndax dama bëgg bu ma àggale tuuti rek daw ci l'islam yàlla nee na fa aqim wajhaka liddiini hanifa fitratallahi allati fatara annaasa alayha la tabdila li xalqillahi dalika ddiinu dana bàyyi ñoom Cheikh ñoom ak maam Ousmane ñu firi ñun mbokk yi lu ñu daal fi mu toll la tabdila dalika diinu fu ñuy takke sëy fu ñu koy tase lu xew foofu xuloo moo tax ñu dem tribunal bàyyi fi yàlla te yàlla tëraloon ba ñu nga ne bi fardillahi wa sunnati fa yusaakun aw tasrixun jamaa allahu wa ataaba wa baraka nga jóge fi ñoo loolu amatul doo ko fonk da ngay dem tribunal pour la bàyyi fi yàlla atte te wa in xiftum shiqaaqa baynihima fab'asu hakaman wa hakaman in yurida islaahan moo tax mbokk yi pour ñu noppalu dana jafe bu ñu fi bàyyi sharia bàyyi fi lépp di doxal leneen lu dul sharia coono rek cër bi dëkk moo tax laa raaxata ولا سعادة له إلا في تحقيقها وفي تطبيقها دانكو أمل بقرة دخل شريعة نكو يلا بدي سينو دو نكو لما جينا ميتي نك لما جينا ميتي موي بنيت فاتو نيوبوكو جاكا جا جانجا الكوفا القرآن دفا الكوفا جلي كوفا يوبوكو مدسل لدن ميراث ñu ne kan moo maanduwul foofu ba tax ñu di ko yóbbu tribunal déedéet kan moo maanduwul kan mooy atte ak déet yusikumullahu ci yàlla wax kadaka yusi yusi na tusu na fasidhum ah aywa du ci yàlla wax yàlla moo maanduwul wala borom xam-xam yooyu maanduwul ah yàlla séddale ku séddale ci la Cheikh Tidiane Dia ba ni lii la yàlla bëggee lii la yàlla bëggee nga ni lii yàlla bëggee yàlla maanduwul ñëpp war kon kan moo maanduwul wax leen ko rek déggu ma de kan moo tëral miraas kan moo atte miraas kan moo ko séddale kon buñ ci jaaree ku maanduwul kon déggoo wuñu ba tey yusikumullahu li zakari li zakari hazzi kan moo wax kon fu ko atte kon ku màndu والله من dañ koy doxal doxal bu mat sëkk dara bañ cee wàññi jaamu yàlla day dundal roox jaamu yàlla day fóot jikko day fóot bakkan ba mu set jaamu yàlla day rafetal dund àdduna di tax nit ñi di ci mën a jëriñu ci njub bu borom xam-xam jub xam nga xam-xam ñu bari am nañ waaye bu jikko rafetul xam-xam nga fu muy teg dara du ca dox moo tax jihaad fi sabilillahi ñépp ko war a def l'islam wàcce di diine dëgg l'islam ñëw di diine ju maan l'islam ñëw yaa wax léegi wala tastawi alxasanatu wala sayi'a idfa billati hiya ahsan لتعفى إذا الذي بينك وبينه كأنه ولي حميد كون الإسلام دفن ديو كل نبكي دي دفن باق يبدي أبتك إن لم تكن نقو وخير فأقوى أن تعبد الله كأنك إن لم تكن تراه إنه ودين ذي ثلاثة قد أقوى الإسلام دفن ديو كل سنة الخلي الإسلام دفن ديو كل نبكي دي دفن ديو كل نبكي دي دفن ديو كل l'islam dafa ñëw pour nit ki liggéey loolu lañ doon wax maa Ousmane wax na ko léegi euh, oustaz man dama dugg ci wanag tuur ndox wala ma def ginnaaw kër toog fa la l'islam santaane raxasu ba set génn jàpp ndax mën naa julli ah la lekk bu lewul nag la lay lekk bu lewul nag. yàlla baax na. yàlla kat yàlla baax waaye dafa teg ñun ñëpp ci yoon. bu doon baaxu yàlla rek la kenn gënu ko. moom mi la moom mi la na inna hadaynaahu sabila imma shakira wa imma kafura kon kooku baax baax na est-ce que bokk nag torof li nga xame ni bu joxe woon programme année bi ci début d'année ni lii mooy euh, épreuve yi école yi lii mooy programme bi lii mooy épreuve yi bu fin d'année jotee kon nu fin d'année di mel ñëpp ay mais lu tax ñun fii ñu yàlla teg nanguwuñ faa jaar xanaa jaar feneen fu yàlla tëral ba pare bëgg dem aljanna ah ku ko fay teg kon yàlla ñu yàlla boole jàppale kon jullit bi dafa war a liggéey léegi la ko maa Ousmane di wax waxtaan fii ma atteeka allahu daara ولا تنسى نصيبك من واحسن كما احسن الله اليك nit ki bu bëggee am gàttal te di ca jaamu yàlla yàlla nangu ko day lekk lu leew yaa ayuha nnaasu kulu mimma fi l ardi xalaalan wala ta waaw kañ mu jeex daal mu waxaat bi yaa ayuha alladina amanu kulu min tayibaati ma ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تؤمنوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم mooy dañ koy dijjanti kenn du ko liggéey ah waaw yéen a wax ni kenn du ko dañu koy fu mu daje ba pare ñu bëgg ñaan ñeeg yépp nangu koo xam ne kii makaluhu xaraam mashrabuhu xaraam matiahu xaraam an naa yustajabu lahu du yomb te it doom ci la juddoo. Hmm. ci jeexitu lekk. boo lekkee ba pare deret ja lekk la ca la deret ngay jóge ca biir deret jooju la yàlla di bindee ku mu bind. Hmm. bu fekkee dagan na te wér baax na bu daganul bu daganee te wérul it moytu ko dafa baax ndax bi nga gis xale bu juddu judduwaale fii woon ca jeexitu lekk ja. Hmm. ku defee nag. il faut que yooyu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax mag ñi bu njëkk ñoom bàjjanu fas yi soxna mu bu leen daan jox dépense da xamuñu fu ñu ko fu ko borom kër gi jëlee dañ ko fay teg jaay seen takkaar